démb ginnaaw digg bëccëg gi ba ñuy janoo ak taskatu xabaar yi ministre de l'intérieur la àndaloon di Antoine Diome ak ministre bi ñu dénk wàllum yoon ci mi di professeur Ismaïla Madior Fall ak ministre bi ñu dénk wàllum armée ci réew mi di maître Sidiki Kaba ak ki ñu dénk wàllum njënd meeg njaay mi yor kàddu gouvernement bi di Abdou Karim ñii ñoo àndoon ak premier ministre démb janoo ak taskatu xabaar yi doon andi ay tax ñu atte ko te kenn tegu ko loxo loolee Ismaïla Madior Fall andi na ci ay leeral nee na su ngeen gisee ne Ousmane ko ba léegi dafa jotagul ab notification décision de justice maanaam li nga xam ne yoon jël na ko ni ab dogal te dañu ko firndeelagut ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko Ismaïla Madior Fall nee na décision bi nga xam ne justice jël na ko bis bu ñu demee ba notifié ko Ousmane Sonko procureur bi mën naa santaane ñu daal di koy teg loxo wala sax Ousmane Sonko moom ci boppam bu ñu ko notifié mën naa jóg ci coobarey boppam dem ne sama yoonu réew tëj ati kaso jàpp leen ma maa ngi nii te nag bu boobaa mbir mi mën nañu ko attewaat du Ba démb moom tim ca ndajeem jël na ay kàddu daal di dànkaafu ci lu jëm ci wàllum réseaux sociaux yi Antoine Diome daal nay wax ne réseaux sociaux yi gars nañu si tey ndax bëri na ci ay vidéo yoo xam ne mën nañu ko manipuler moom ministre de l'intérieur di Antoine Diome ne na bëri na ñoo xam ne jamono ji maanaam noppi nañ te li tax ñu noppi bañ ku leen saaga am na ñenn ñoo xam ne ci réew mi boo bokkul ak ñoom gis-gis wala bokkoo ak ñoom xalaat loo wax ñu saaga la ba tey ci journal bi di Walf Fadjri Ismaïla Ismaïla Madior Fall nee na Ousmane Sonko mën nañu ko attewaat yéenekaay gi de Le Quotidien yor yor ñu xëy fekk fa Aliou Ndaw mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon procureur bu kër yi nee na mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr luñ si attewaat gisuma ko li nga xam ne moo waroon a am ci mbir mi maanaam ñu acquitté Ousmane Sonko seetal ko ba mu seet wecc ci mbir mi ndax li am ba des maanaam xii ni mii ni am na ci maanaam njort goo xam ne gu wér la am te nag loolee bi mu ci amee rek mën nañu ko acquitté ba tey moom Aliou Ndaw daat nay wax ne amul lenn luy confirmer que ne Adji Sarr li mu wax ne ànd na ak Ousmane Sonko ay yoon yoon amul lenn lu koy firndeel Aliou Ndao daat nay wax ne li jëm ci wàllum corruption de jeunesse maanaam loolee ay caaxaan la yéen kay gi di Vox Populi maître Sidiki Kaba mi ñu dénk wàllum armée bi ci réew mi démb andi na ay tontu ak ay leeral ndax dafa am ñenn ñoo xam ne ñoo doon wax ne waa palais bi dañoo jënd ay arme loole nag maître Sidiki Kaba weddi na ko daat nay ëndaale nag ay leeral ci lu jëm ci wàllum CPI gi nga xam ne ñoo ngi koy wax ne ñu fa yóbbu ñenn ci gouvernement bi ak force de défense et de sécurité nee na loolee caaxaan la ñi nga xam ne ñoo koy wax amuñu qualité bi amuñu capacité bi mënuñu ko def loole ay waxi kasaw-kasaw la am Amadou Ba ci biir journal bi daat nay wax ne manifestation yi nga xam ne moom la ñu dana ñu ci ubbi ay enquêtes yoo xam ne yu leer lay doon te nag képp koo xam ne laale nga ci yoon dina dal si sa kaw ni mu gisee mbir mi moom premier ministre bi ay nit ñoo jóg bëggoon a dugal Sénégal ci kaw daat nay wax ne ku bëgg a am réew a doo yàq ndax boo yàq bu ñu la joxee réew mi doo ca def lenn yéen kaay gi du source a nee na démb ñenn ci gouvernement bu Sénégal ñaari waxtu yoo xam ne janoo woon nañu ko ak Sénégal doon doon wax ak ñooma journal bi ni mu ko tuddee mooy deux heures de temps yoo xam ne gars yi doon show Antoine Diome mi ñu dénk wàllum intérieur démb timit bi muy janoo ak taskatu xabaar yi laaj nañu ko na ko Ousmane Sonko lan moo tax ñu daal di koy jéng maanaam lan moo tax Ousmane Sonko ab blocus ñu def ko buntu këram ba munta dem ba munta dikk lan moo ko waral la Diome nee na loolee dafa bokk ci maintien de l'ordre yéenekaay gi di Rewmi Quotidien Ousmane Sonko démb nag ko ca buntu këram mu yor ab bal maanaam di songale yéenekaay gi di Direct News lépp xew ci réew waral mooy mortal combat bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko woote yéen kaay gi de l'Express xëy di ñu xibaar naan ñu gouvernement bu wax ji wax ji mooy pression internationale bi nga xam ne jamono ji moom moo am loole moo tax gouvernement bu Sénégal démb bëggoon a génn ngir wax gouvernement bi wax nañu convaincre ñu kenn l'Express mooy wax nee na gouvernement bi démb wax nañu bañ a gër a géex waaye convaincre ñu maanaam yeyu ñu ñu ëpp ci askan wi yéen kaay gi de la Tribune ñu xëy fekk fa bugaan gi dane nee na kuy wër état boo xam ne kàcceeg wax dëgg ci la yëngu bay boo foo fekk état nga daal koy jàpp moom Bougane Gueye Dany daat nay wax ne waxi kasaw-kasaw waxi balla puy ji nga xam ne moom la état bu Sénégal nekkee xamul fan la ko teg te ñi nga xam ne ñooy waa presse étrangère bi ñoom nag wane nañu fen yee kàcc ne moom la état bu Sénégal kàcc ci manifestation yi nga xam ne moom la ñu génn moom Bougane Gueye Dany ci biir journal bi nee na Ousmane Sonko jamono ji maanaam ci kaso la nekk te nag loolee tegewul fenn Macky Sall ci boppam yi duma ci xam bëgg na leen a mu teg ko ci suufa réew mi am jàmm réew mi amuk dal lay quotidien yor yor ñu xëy fekk fa ngañ demb Touré Pastef nee na wax ji wax ji gars yi Ousmane Sonko bëgg a waaye dafa am loo xam ne dafa war leer ci seen bopp mooy ay élection moom munta am ci réew mi te Ousmane Sonko du ca bokk yéen kay gi de la sa nee na chef protocole bu Ousmane Sonko di Jibi Gueye jamono ji tere nañu ko ngir mu dugg kër Ousmane Sonko Jibi Gueye Ndiaye moome nag maanaam moo doon doxal Ousmane Sonko ay soxlaam maître Ciré Clédor moom nag ñaawlu na bu baax a baax ak yelleefu Ousmane Sonko yi nga xam ne dañu ko nappaaje daal di koy salfaañee moom maître nee na dana kalaame état bu Sénégal fa mbaxana doonee benn ndax fukki yoon yoo xam ne dem na ko kër Ousmane Sonko ñu daal di koy lànkal ba tëdd sénaaj wa dàq ko na ko munoo gis sab client yéen kay gi di Direct News xëy di ñu xibaar naan ñu Abdoulaye Diagne mi nga xam ne mooy directeur général bu impôt domaine génn na wax na ci grève bi nga xam ne moom la seen syndicat liggéeykat yi nekk impôt domaine amal moom Abdoulaye Diagne daan nay wax ne bi ñu ko installé ci février 2023 ba léegi amul benn plateforme revendicative boo xam ne liggéeykat yi jébbal nañ ko ko moom Abdoulaye Diagne daan nay wax ne nañu ànd ak dal sérénité ba pare bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne mooy intérêt réew mi yéen kaay gi di exclusif ak les échos xëy duñu xibaar naan ñu grève bi nga xam ne moom la liggéeykat yi impôt domaine yi def grève bi dafa daal di lajji maanaam échec total moo ci am ndax bëri na ñoo xam ne maanaam topp ñu leen ci grève bi ñi nga xam ne ñoo leen ci topp maanaam onze pour cent la tey ci biir journal bi di exclusif nee na grève bi xam ne liggéeykat yi impôt domaine yi def nañu ko amul benn amee impact ci lu jëm ci wàllum recouvrement recettes yi ndax lu toll ci cinquante six milliards quatre cent trois millions cent soixante neuf mille cent un franc yoo xam ne recouvrer nañu ko loolee nag record la ndax temps normal bu dara xewul gerew amul quarante quatre milliards ñu doon recouvrer ñoom nee nañu gerew nañu ba pare recouvrer nañ lu toll ci cinquante six milliards loolee mooy firndeel ne gerew bi dafa lajji du samay kàddu exclusif muy xëy di wax ndax ñoom nee nañu lu toll ci douze milliards yoo xam ne yokku nañu ko si yu fekk deux